Job l'enfant terrible de la banlieue, Sidi Job celui qui s'est autoproclamé le porte-drapeau de la musique de la banlieue, le porte-drapeau de Pekin Gayaway, Chawai, la banlieue tey Sidi Job, dafa war a way wayu he is maanaam il est polyvalent maanaam Sidi Diop ci lu bëri la mënee. tey dama doon seetaan Abba ak Mal defe naa doomu Golbert ñoo ko invité woon ñu ne ko woyal ñu ay wayu sëñ Saliou wayal ñu ci yonent bi mais sëñ Saliou ñëpp xam nañ ne ci am na ci ay way yu baax yu mu ci woy way yu neex waaye yonent bi Sidi Diop ni mu ko doon woyee dafa mel ne jàngkat yi ndax moom histoire lay jël parce que mu ngi wax ay gëléem mu ngi wax bëy bi. mais nettali benn histoire boo xam histoire yonent bi te li ma si jaaxal Sidi Diop fan la jàngee lii yëpp mais Sidi Diop du mag Sidi xale la. mais Sidi dafa mel historien Sidi dafa mel une bibliothèque. boo ko waxee Ndiaga mu dóor la Ndiaga Mbaye boo ne ko xaar may ma jaaga mu dóoral la xaar may ma jaaga Youssou Ndour mais affaire jàng yi nag daf ci ay ah Ngoné kat moo fi génn mu ne jàngkat yi li ñen leen di fay ci SODAV mo upp yenn mbalaxmaan yi kon nag jàng bi xaalis baa ngi ci parce que am na ku génn ku wax Aziz Dieng la tudd xaw ma Sodaab lay liggéey mu ne yenn jàngkat xasaay yeeg tijaan yeeg yooyu dinañ laal Sodaab dinañ leen fay 10 millions kon nag Sidi Diop war na bàyyi xel ci loolu bàyyi mbalax moom waruñu ko wax mu bàyyi ko. ndax Sidi ñëpp xam nañ ne mbalax man la damay xaw a mbalax tuuti rek mais nag Sodaab bi moom li sax daf may permettre mu wax ci ndax Thione Seck dafa génn mu weddi. lii doomam Wally Seck wax Wally Seck moom dafa ne mi ngi gërëm SONAV Wally Seck dafa ne je suis bien payé Wally dafa ne man du ma xalaat SONAV ba mu waxee loolu mam góor jasaaka daal di ci gis boppam moom it mu génn mu gaaruwaale Wally Seck mu ne moom soxlawul xaalis si il vit bien bi maanaam moom nee yetu SONAV bi dalu ko dalul kenn téen musicien dañu war a bàyyi seen seytaane dañu war a bàyyi li ñuy def waaye nag Thione dafa génn mu xaw a dëggal li Mame Gor Diazaka wax parce que Thione Seck moom dafa ne ah SODAV bu njëkk ba juróom benn weer ba juróom benn weer lañ daan fay liñ daan fay moo ëpp mu ne ki nekkoon SODAV dafa bëri yërmaande ndax kooku magistrat la woon kooku dafa yërëmoon musicien moom daal nee na bëggugul wax ndax Thione Seck ngi mbuur mi ngi sali genre vacances di defar ay euh, vidéo ci albumam bu bu bu rëy bi muy pare Thione Seck à gogo bi nga xam ne def ci invité adduna bi yëpp mi ngi foofu mais nee na bu ñibbisee dina xoolaat mbiru Sodaar bu baax ndax fi mu nekk bëggul joxoñ baaraamu ngoon Ngoné Ndour ndax Ngoné Ndour rakkam la waaye nag Thione xaw na dëggal ñoom maam góor yi nga xam ne dañuy toog des fois ñaari ñaari at kenn du leen fay ñu lay fay juróom benn weer kat

kon ñu ngi koy encouragé te dafa mel ne Pape Diouf dañ ne aussi mi ngi waaj a def benn tournée fële Amérique. kon nag ñu ngi wax Pape Diouf gàcce ngaalam ndax yow koo xam ne vingt cinq ans ba léegi noppee ngay jéem kii ku jara encouragé la.